asalaamaaleykum mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla aji sax ji bëgg ñépp mucc amati na nu mbég ci li nu xam ne yéen a ngi déglu ak teewlu seen émission yoonu njub tey nag danu fas yéene gëstandoog yéen ci njàng mu jëm ci mucc gi muy lu am solo te mata leeral ndaxte dafa bari lool ñu jël seen yaakaaru mucc teg ko ci seeni jëf moona mbind mi wax na ne léegi nag yàlla feeñal na ni nit mën a jube ci kanamam jub ci kanamu yàlla gëm yéesu Kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci yàlla wàcce na Kirist mu nekk sarax ngir baal nu sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te ngëm rekk moo nu ciy boole noonu yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yéesu te ba tey dëkk ci njubteem bu nu sukkandikoo ci li mbind mi wax noonu danuy gis ni yaakaaru mucc nit waru ko teg ci jëfam waaye su fekkee noonu la naka lees mën a mucce ba dem ajana laaj bu am solo bu mata faram fàncee ngi noonu ba tax na ngir tontu ci dafay laaj ñu fàttaliku ni lépp deme woon ca njaalbeen ga noonu dinanu gis la xewoon ba tax nit soxla mucc ci mbugalu safara sudul fay mukk ci noonu kon du jaadu nu yamale sunu gëstu ci menn njàng kese xam ngeen ne ba dara amagul yàlla aji mat ji rekk a nekkoon naka noonu mu sàkk lépp li nuy gis ak li nu gisul lépp li yàlla sàkk dafa matoon ndaxte moom ci boppam dafa mat ci selaayam ci mbëggeelam ci kóllëreem ci mën-mënam ci xam-xamam ak ñoom seen ca juróom benneelu fan ba yàlla sàkk nit ci melow yàlla nit nekk ku mat mu may nit xel xol ak coobare noonu nit am xel mu mën a xame yàlla mu am xol bu mu mën a bëgge yàlla te it nit am coobare ba mën a tànnal boppam déggal yàlla mbaa ñàkk koo déggal waaye li ñu sàkk nit ci seelaay tekkiwul ne ñoroon na ba mat sëkk coobare yàlla moo doon nit màgg ci xam-xam ci mbëggeel ak ci jaamu yàlla moo tax yàlla nattu nit ngir ubbil ko bunt bu mu mën a jëme kanam ak matam te won mbëggeelam yàlla jaare ko ci wattu ay tereem di topp ay santaaneem waaye ndeysaan xabaar bu bon bi mooy bi yàlla aji sax ji nattoo aadama ne ko mën ngaa lekk ci bépp garabu tool bi waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faw nga dee ab diir gannaaw ga seytaane ñëw ndax sunu maam ya ba ñu déggadil yàlla lekk ca doomu garab ga li ñu déggadil yàlla ba lekk ca garab ga loolu moo tudd bàkkaar moo tax yàlla dàq leen toolu ajana bàkkaar dafay taqale nit ak yàlla miy joxe dund gi ñépp ñi soqi ko ci aadama ak awa bàkkaar boobu topp na leen ni wopp juy topp xeet mooy li kàddug yàlla gi di wax naan bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar moo taqale nit ak yàlla mi yor dund gi gannaaw baakaaru aadama nit amatul woon dund gi ndaxte tàqalikoo woon na ak yàlla mi boroom dund gi ci misaal dafa mel ni su ma dogee aw car ci genn garab car waa ngi tooy waaye dundatul fileek ay waxtu rekk ay xobam dinañu tàmbali lax di wow ndànk-ndànk ba mujj wow koŋ ndaxte car wi tàqalikoo na ak dàtt bi koy dundal muy misaal rek ne peyu bàkkaar mooy dee kon jafe-jafe nit moo di bàkkaar bés bi aadama ak awa bàkkaare ci lañu nekk ay bàkkaarkat daldi am jafe-jafe bu rëy a rëy maanaam tàqale ko nañu ak yàlla ñun ñépp ñi soqi ko ci ñoom ay bàkkaarkat lañu yu mënula fexe ba jub fa kanam yàlla aji sell ji kàddug yàlla nee na sunu jëfi njub yépp a xasaw ni sagar wu tilim ndegam nag yàlla aji sell ji sellaay lay sàkku ci nit ñépp kon bir na ne nit am na jafe-jafe te sax mënees na wax ne jafe-jafeb nit ñaar la benn li nu am te bëggunu ko mu di sunu bindu bàkkaarkat ñaar li nu amul te soxla ko mu di ak mat loolu moo di xabaar bu bon bi te moo tax ba mënatunu jege yàlla léegi nag lan mooy saafara si maanaam xabaar bu baax bi mooy lan xabaar bu baax bi di saafara si moo di yàlla tëral na pexe mu mu musale bàkkaarkat bi te ba tey sax ci njubteem mu ngi ko tàmbalee misaal ak a yéene ca njalben ga jaare ko ci saraxi mala ya ak ci waxi yonent yi mbind mi dafa wax ne bi aadama ak awa bàkkaaree seeni bët daldi ubbeeku ñu xam ne def nañu yaramu neen ñu daldi ràbb xobi garabi figg laxas ko ci seeni ndigg te yàlla aji sax ji defaral aadama ak soxnaam ay yërey der solal leen ko yërey der yooyee dañuy misaal ne sarax amoon na muumin deewoon na di mala yu tooñul sarax bu jëkk boobu yàlla defoon ngir wutal aadama awa yëre yu ñu muure seen gàcce wone na li bàkkaar jur muy dee sunu ñaari maam yooyu gisoon nañu bu leer ne dee mooy payu bàkkaar xamoon nañu ne faaw deret tuuru ndax te mbir mi nee na bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am kon booba la yàlla wone woon ne nit mënul la def daara ba musal boppam ci mbugal gi déggadeem jur te it sarax boobu ak yeneen sarax yi topp yépp dañu doon misaal sarax bu mujj bu mat bi yàlla dige woon ca bés ba aadama ak awa bàkkaare waaw xarit yi ñuy déglu yàlla yemul rekk ci saraxi mala yi ngir misaal pexeem ci daan baakaar te bañ a daan baakaarkat bi ndaxte yàlla jëfandikoo na itam waxi yonent yi ngir yéene ñëwu musalkat bi ki nar a gane ci àddina ngir gàddu alkandek doomu aadama yi noonu yonent yi joxe nañu ay firnde yu wér ci musalkat bi ñii wax nañu ci bërëb bi mu waroon a juddoo ñee wax ci meloom ak ka waroon a doon waajuram wu jigéen ak kéemaan ya mu waroon a def ñeneen wax ci ni ko kenn ci taalibeem naroon a wore ñu wax itam naka lees ko naroon a reye ci bënn ay loxoom ak i tànkam ñu wax it ne sunuy bàkkaar a tax mu nar a dee te yonent yàlla daawuda wax ne dina dee te dekki ca bàmmeel ba ba jamono ji yàlla tànnoon akse mu yónni malaakaam jibril ci janq xamal ko ne mooy nekk yaayu musalkat bi te mu ngi tudd yeesu li tekki yàlla mi musal la yonent yàlla ya waxoon ci musalkat bi lépp bi yéesu juddoo amal na ko ci dundam ci mat la juddoo mu dëppook ni ñu ko yëgle woon taqul benn baakaar bi mu amee fanweeri at am bés yonent yàlla yaxya séen ko ne kii mooy mbotem yàlla mi ñu nara a rey ngir dindi baakaaru àddina muy firndeel rekk ne moom yeesu la saraxi mala yi daan misaal yeesu dekkal na ay néew ubbi bëti gumba yi dalal na sàmbaraax ma dàq na ay rab wéral na ay jarak ak ñoom seen loolu lépp dëppook waxi yonent ya yéesu kenn la amul moroom ndaxte dara tëwu ko lu mat ñetti at yéesu di wër di yëgle ñëwuk nguuruk yàlla gi bi ko nit ñi tàmbalee gëm soxar dab njiiti diine ya ñu ragal a ñàkk seen maqaama ak seeni sañ-sañ ci nit ñi noonu ñu tàmbali tëral pexem reylu ko booba yéesu tàmbali faramfàcceel ay taalibeem pexem yàlla mu di leen xamal ne dafa war a dem yerusalem daj fa coono bu metti bu bawoo ca njiit ya sëriñ su mag saak xutbakat ya ne dinañu fexe ba reylu ko waaye dina dekk ca ñetteelu fan ba guddi ga yeesu mujj a dund mu ngi nekkandoo woon ak ay taalibeem ba ñu reeree ba noppi ñu dem ca toolu getsemane workat ba fekk leen fa ànd ak ña doon jàpp si yeesu piyeer bocc jaasi waaye yéesu ne ko roofal sa jaasi ci mbaram ndaxte su ma deewul ni sarax nan la mbind mi mën a ame ndaxte mbind mi nee na nii la war a ame ba ñu ko jàppee ba yóbbu ko àtte ko ña ko doon àtte nee nañu gisuñu genn tooñ gu mu def gu jar ñu koy teg dee moona terewul njiiti yawut ya def lépp ba ñu daaj ko ca bant ba noonu deretu ku mat ki tuuru te noonu lanu gàddule sunu mbugalu bàkkaar nun ñépp kenn forsewul yéesu ci daj boobu coono coobareem la yàlla xamoon na ne su tëralul pexe moomu kenn du mucc ci safara ndaxte jëfi nit doyul ngir raxas bàkkaar te peyug bàkkaar moom mooy dee tàqale ko ak yàlla ba faw kon sunug mucc nun ñépp moo tax yéesu daj coono boobu mbokki déglukat yi noonu la yeesu ci boppam deewe ni sarax bu mat sëkk ngir matal pexe mi yàlla nasoon ca njalbeen ga maanaam pexeem daan bàkkaar te du daan bàkkaarkat bi noonu ku gëm saraxu almasi bi dinga am mucc gi laata yeesu di dee waxoon na ni lépp mat na maanaam fay na lépp fayal nu sunu boru bàkkaar amul dara lu nu ci war a yokk mbaa di ko ci yi li saraxi mala yi daan misaal lépp yéesu matal na ko bi mu faatoo ñu ngi ko dencoon ci bàmmeelu génn góor gu am alal loolu itam dëppoo ak ni ko yonent yàlla esayi yëgle woon lu kenn mësula def la yéesu def ndekkiteem ndam lu rëy la di firndeel ne yàlla nangu na saraxu yaramu yéesu mbokk mi léegi xam nga ne ñaari jafe-jafe nit ñoo di li nu am te bëggunu ko mu di sunu bindu bàkkaarkat nan lanuy def ba tàqalikook moom beneen bi mooy li nu amul te soxla ko di ak mat moom it nan la lanuy def ba am ko xanaa nu fàttaliku rekk ne bi yéesu deewee ca bant ba matal na pexe mi yàlla tëraloon ngir daan bàkkaar te du daan bàkkaarkat bi loolu la saraxi mala ya ak waxi yonente ya daan misaal ni ñu daan tuure deretu mala ya ngir muur bàkkaar yi noonu la yéesu mi mësula def bàkkaar tuure deretam ngir raxas bàkkaaru képp ku ko gëm yiwu yàlla la looloo tax kàddug yàlla ne ci yiwu yàlla ngeen mucc ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayug yàlla la ndaxte peyug bàkkaar mooy dee waaye mayu yàlla mooy dund gudul jeex ci yéesu kirist sunu borom moona li yoonu mucc wi di leer lépp terewul mu am ñoñ ñu ngi yaakaar ba tey ne seen mbaalug bàkkaar mu ngi aju ci seenub liggéey jàppuñu ba tey ne mucc gi ak may la du ay neexal walla peyug liggéey bu ñuy defal yàlla góorgóorluy nit mënuñu ko musal yàlla dafa la bëgg a may mucc gi nooy def suñu la mayee lu baax te neex danga koy jël noonu nga war a def it ak muccuk yàlla gi jël ko maanaam gëmal pexe mi yàlla waajaloon ngir muccuk nit ci dëgg dee tàbbi safara rekk lanu yeloo woon waaye yàlla jaare ko ci pexem saraxu almasi bi dindil nanu li nu amoon te bëggunu ko di sunu baakaar te it may nanu li nu amul woon te soxla ko di ak mat maanaam yàlla ràng nanu matuk almasi bi kon yow miy déglu te mucc gi soxal la fi nga war tàmbalee gannaaw ba nga nangoo yàlla dafa sell laab te mat mooy nga xam te nangu na yow mënuloo jege yàlla ndax selloo laaboo te matoo waaye li tax nga mat am njub gi yàlla bëgg mooy nga nangu te gëm ne almasi bi yéesu mooy ki amal pexe mi yàlla tëraloon ngir daan baakaar te du daan baakaarkat bi ndax te ku jub ki dee na ci sa palaas fayal na la sa boru baakaar soo ko gëmee xamal ne mucc nga baal nañu la ràng nañu la te ak matuk yàlla gi nekk ci almasi bi yeesu ndaxte yàlla mi mënula wax la ca gannaaw dëgg dafa ne yàlla feeñal na ni nit mën a jube ci kanamam jub ci kanam yàlla gëm yéesu kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci ndaxte ñépp a yem fa kanam yàlla ñépp a baakaar ba joteetuñu ndamu yàlla waaye gannaaw kirist yeesu dee na ngir jot leen yàlla ciw yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara wàcce na kirist mu nekk sarax ngir yàlla baal nu sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te gëm rekk moonu ciy boole noonu yàlla firndeel na ne ku jub la donte sax dafa muñaloon ñi jiitu jamonoy kirist ba jéggal leen seeni bàkkaar kon ci jamono jiinu ne yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yeesu te ba tey dëkk ci njubteem kana mën a bàkku nag ci kanamu yàlla kenn lu ko waral xanaa sàmm yoon déedéet ngëm rekk kon fii tàggoo gi yéen tey su ngeen bëggee xootal seen xamxam ci mbirum mucc gi mën ngeen nu bind nu yónnee leen benn téere bu tudd tout ce qu'on dit les prophètes te du ngeen ci fay dara sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis mu ngi leen di bàyyeeg aaye bii naan yàlla feeñal na ni nit mën a jube ci kanamam jub ci kanamu yàlla gëm yéesu Kirist rekk a koy maye te képp ku ko gëm bokk nga ci